ok alhamdulillah wasala allahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi jë war a jël tey aaya bu jëkk ci suratu fatir kon ñi ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñuy wërsëgalaat ñu daje tey suñu ñaareelu daje ci weeru mag wi di shahru ramadan ñu daje ci téereb borom bi loole nekk loolee nekk benn ngëneel ci ngëneel yi ñu gën a yaakaar ci suñu boroom fa lilahi alhamdu it ni ñu koy waxe it yàlla dogal na am na ñoo xam ne nii ñu ngi koy ànd ak ñun ak fuñ mën a nekk ci àdduna bi yal nañu yàlla boole ak ñoom ñépp ak ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom waa xam sa diine yi ak waa télévision Islam TV yàlla boole ñu ci ñi muy dajale ci yërmandeem ci àdduna ak ci àllaaxira kon incha allah dañuy bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سني بروم جل وعلا مني alhamdulillah mboole mu cant ñeel na yàlla faatiri samawati wal ard moom mi bind asamaan yi ak suuf alfaatir mooy ka nga xam ne mooy ko sos jaailil malaaikati rusula moo def malaaka ya ñu nekk ay yonent uli ajnihatin masna wa sulaasa wa rubaa ñu nekk boroomi laaf am ñu ca am ñaar am ñu am ñett am ñu am ñeent yaziidu fi lxalqi ma yasha mooy dolli ci mbind ga nag lu ko ca neex inna allaha ala kulli shay'in qadir sa borom yàlla bépp mbir mooy ka ca am kattan maa yaftaxi llahu linnaasi min rahma lépp loo xam ni yàlla ubbil na ko ñel nit ñi ci yërmaande fala mumsika laha amul kenn koo xam ne ni dana ko mën a téye wa ma yumsik waaye lu yàlla téye fala mursila lahu kenn mënu koo joxe di ko yónni gannaaw yàlla min baadihi ci gannaaw moom wa huwa al aziz mooy ki not lépp lu mu mën a doon ci kattanam nga mooy alxakim mooy ki xereñi lu nekk rek teg na ko fa mu war a tege yaa ayuha nnaas ay yéen nit ñi uzkuru nicmatallahi alaykum fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen hal min xaaliqin gayrullah ndax am na kenn kuy bind gannaaw yàlla yarzuqukum min alsamaai wal ard mu leen di wërsëgal jële ci asamaan ak suuf laa ilaha illa hu kenn yeewul ñu koy jaamu ko dul moom fa anna tufakun moo ana fana ngeen di dëppoo bay mën a jadd yoonu njub mi ngi noonu mbokk li mooy suratu fatir bokk ci saar yi wàcce makka mboolem saar yi wàcce makka dafa ñëw ngir defar pas-pasu doomu aadama bi doomu aadama bi gëm ngëm goo xam ne ngëm gu sell la suñu borom yàlla nee na allazina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun ña nga xam ne ñoo am sécurité yàlla di leen jàmmal adduna di leen jàmmal alaxira mooy ñi nga xam ni dañoo am pas-pas bu wér gëm lépp lu yàlla santaane ñu gëm ko ñu mel nii su dee dañoo ñàkk ñi ngi ànd ak dal ak jàmm suñu woomlee naka noonu suñu wéree naka noonu suñu wéree dee naka noonu loolu nag kenn dong ko am muy julit bi gëm yàlla bokkaalewu ko dara yal na yàlla boole ñu ca saari makk yi looluy woote jëme rawatina saar bi ñu tiim ci suuratu fatir suñu boromu yàlla ubbee ko sant boppam mu ne mboole mi sant moom la ñeel te loolu yi tamit léegi léegi bi ñu sëlmalee ku nekk ci ñun incha allah def na ko fanweeri yoon ak ñett suñu sëlmalee timis na ko noonu gée na ko noonu lum néew néew julit bi dana wax cent soixante cinq fois alhamdulillah alhamdulillah ngàllawaay ni ko làmmiñ bi waxee naka xol bi yége noonu cër yi yége ko noonu te mooy ñu xam ne alhamdulillah borom boobu moo jara sant ndax moo bind asamaan yi def ca lam te def jant yaag weer yaag biddiw ya ak leneen lu ñuy jëriñ moo ñu bindal suuf xotti ci géej yi xotti ci montagne yi génne gàncax gi génne bàyyuma yi ak lépp lu ci nekk waaye muy borom malaaka yi malaaka yooyu nga xam ni lu dul jamono ji ñuy dund di athéisme pur ñoom ñoo ciy sikk sàkk waaye du yahud du nasaraan du mushrikunu arab du mboolem ñi fi mas a jaar lu dul gëm nañ ni ay malaaka yàlla am na ko ci kaw asamaan yi malaaka yooyu ñi ngi dëkk asamaan seenib lim yàlla rek ko xam waaye borom bi nee na dana leen yónni rusulan ñu yónni ci ay jaamam galawaay yow julit faat caam ak moor njaay ci yem xamal ne bis bu yàlla sàkk yàlla dana yónni ci yow ñeenti malaaka dana am ñaar ñu ñëw fuglu la fi nga fi fajar jote ba baa fi takkusaan di jot gannaaw ba ñooñu yéeg suñu borom yónni yeneen ñaar ñoom ñeent daañ daje ci julli fajar julli takkusaan bu ñaar ñi yéegee ñaar des fi loole ba baa ngay sa ruux gi di teqali ko ak yow suñu borom moo yónni malaaka ya ñuy indi ay wax yu di wàcce téere yi di indi ay mbugal di tasaare wërsëgi jaam yi malaaka yooyu mi ngi noonu nekk ay jaami yàlla duñ ko may te duñ def lu dul lu yàlla santaane ñoom yàlla da leen fixé ci loolu malaaka mënul mooy yàlla malaaka mënul arrêté tasbix malaaka du nekk lu dul ci service yàlla suñu borom def leen ñuy borom yi laaf laaf yooyee tey yéen a gis gis ay avion yu doomu aadama defar moom ay laaf di naaw yéen a gisee di picc yi laa fi malaaka nu mel yàlla ko xam suñu borom ba yéeféeri arab yi ne malaaka yi ay jigéen lañu dañu ashahidu xalqahum ndax dañoo fekke fa leen yàlla di binde déedéet mbokk julit malaaka ci ni ko yàlla binde dëgg dëgg dëgg nit ordinaire du ko gis man na koo gis nag heure bu jëlee melokaanu la soob yàlla jibril alayhi salaam sahabatul kiram yàgg nañ koo gis da daan ñëw di feeñoo ci melokaanu dixiyatul kale bi mi ngi noonu comme nam ñëwee ci xadis bu siiw boobu omar ibnul xataab nettali am na ci ñu am ñaari laaf am na ñu am ñetti laaf am na ñu am ñeenti laaf aaya bi mel nii la suñu borom dox suratu nisa fankihu ma taaba lakum min nisa masna wa sulaasa wa ruba takk leen lu leen neex ci jigéen ñi bu leen neexee ngeen am ñaar wala ñett wala ñeent lu tax mooy yàlla foofu la yemile julit julit du dajale lu ëpp ñeenti góor ci buumam donte ne nii da ngay gis ay yàqkat ñu ne déet suñu borom dañuy takk leen masna mooy deux deux sulaasa trois trois waruba quatre quatre loolee boo ko xoolee day nekk neuf am ñu ne déedéet sax dix-huit la donte ne mbokk yooyu ay tappale la yoo xam ni foye diine rek la donte ne ne am na ko gën a passé ñoo ñëpp ci ak beew moom ne na ñun dañuy takk rek ndax suñu borom ne na fankihu ma taaba lakum kon it ñun dañuy takk di takk di takk rek mi ngi noonu fa lillahi alhamdu ba mu koy wax mi ngi ci digg ndëndëm ci digg dooleem waaye fi mu toll nii moom yaakaar naa ne lépp loo xam ne nii lu aju ca wàllu jigéen moom génn na ci programme addunaam yàlla na yàlla wërsëgal ñu wërsëglu ko tuub wala ñu dajeeg moom mbokk suñu borom nag nee na mooy yokk ci mbind gi lu ko neex looloo tax seen kilifa ga ñoom ñëpp mooy jibril alayhi salaam suñu borom mooy bind lu ko neex di tànn kilifa malaaka yépp muy jibril mutain sama amin suñu borom lu muy dogal jibril lay woo wax ko ko mu jottali ko malaaka yi yonent bi alei salaam nee na jibril juróom benn téeméeri laaf la am looloo tax ba mu ko gisee ci melokaanam mu ne saddal ufuq jibril bi mu feeñoo yonent bi alei salaam la nga xam ne mooy horizon bi mooy mboolem asamaan bi jibril fees na ko del del mi ngi noonu alayhi salaam juróom benn téeméeri laaf la am borom boobu nag mu ne kon mooy borom kattan gi am kattan ci lu mu mën a doon inna allaha ala kulli shay'in qadir loolu mooy pas-pas bi jullit di gànnaayoo nga la way yow jullit da ngaa limité ci lu mu mën a doon ci xam-xam ci mën-mën ci lu mu mën a doon amma borom bi ngay jaamu moom innahu ala kulli shay'in qadir looloo tax heure boo demee ba jaaxle ba jàq bul jàpp ne c'est fini déedéet c'est pas fini des na kattan goo xam ne di fini jamais muy kattanu borom bi jàll wa ala looloo tax lépp lu la të saxal di ko ñaan yàlla jalla wa ala lépp looy ragal saxal di ñaan yàlla musal na ci jalla wa ala innahu ala kulli shay'in qadir borom boobu nag di wax ay yéen doomu aadama yi ngalawaay xam leen ni li yàlla namm muy xéewal gi jëm ci yéen kenn mënu koo téye li yàlla téye kenn mënu leen koo jottali ma gaa yi lii lum ñuy jàngal mooy yow muy borom xel ndax da nga yaakaar keneen ku dul yàlla comme bu yàlla na muy xiiwal jëm ci yow muhammad ak ibrahim jibril ak mikaayil kenn mënu ci dara fala mumsika laha te it li la yàlla narut a jox kenn doomu aadama mënul fexe ba nga jot ci ndax doo doy loo yàlla kay loolu moo taxoon yonent bi alayhi salaam waxoon Abdullah ibn Abbas ay ibn Abbas maa ngi lay dénk booy ñaan bul ñaan keneen ku dul yàlla bul sukkandiku ci keneen ku dul yàlla bul làqu ci keneen ku dul yàlla xamal ne mboolem bindaa fa ni buñ daje woon bëgg laa jëriñ duñ la mën a jëriñ lu dul ci li yàlla tudd ci yow mboolem bindaa fa buñ daje woon bëgg laa lor duñ la lor lu dul yàlla tudd ci yow yàlla lu mu doon tudd nag bind na ko ba pare jeex na jalla wa ala mi ngi noonu fala mumsika laha borom boobu nag subhanahu wa taala wëlbatiku mu ne mooy al aziz dara tewu ko doonte ne kattanam nga du ko jëfe lu dul ci xikma lu ne teg na ko fu mu war a teg gannaaw ba mu woo ñu woote bu jëkk danañu war ñetti yoon ci saar bii ñuy jàng woote bu jëkk bi mooy ee yéen nit ñi am na borom xam-xam yu ne annaas jinne yi dañ ciy duggaale ee yéen ko nit ak jinne fàttaliku leen xéewalu yàlla ci yéen mbokk xéewalu yàlla nañ ko fàttaliku doonte ne dañuy gëm ni in ta'uddu ni'matallahi la taxsuuha kenn mënul feqiwul yàlla waaye suñu borom mu ne xaaral mu tuddal ci lenn rek ndax am na kuy bind ca du yàlla ba yow doomu aadama kan moo la bind xoolal sa bopp taxawal ci seeti bi nga xool sa bopp xoolal li la yàlla may ci ay bët ku la ko defal nopp yi ku la ko defal xoolal loxo yi tànk yi xoolal ni la yàlla subhanahu wa taala bindee hal min xaaliqin gayrullah ndax am na ku ñemee taxaw ci kaw suuf ne maa ngi sant sëñ diw moo ma foosal sama nopp yi abadan yéefir yi lañ doon sanku sanku xam nañ ni yàlla jëlla wa ala moom da nga muy aji bind ci muy benn gannaaw ba mu leen di wërsëgal jële asamaan ak suuf yàlla ñu may ndox may ñu oxygène yàlla ñu may bàyyi may ma ñu may pepp yi may ñu gàncax gi lépp di jógee ci asamaan ak suuf asamaan taw ba muy wàcce suuf ak la muy meññil borom boobu nag ne gannaaw ba ngeen nangoo lii xam ne yàlla rek ay aji bind yàlla rek ay aji wërsëgal ay waaye nangu leen li ci des te mooy laa ilaha illa hu xam leen kon kenn yeewul ñu koy jaamu ko dul moom fa anna tufakoon naka la doomu aadama mën a yeggi ci kan na suba juuto juuto gu tol ni aji borom bi ko bind moom rek di ko wërsëgal moom rek mënu ko fa ñukk am keneen kum koy bokkaaleel yal na yàlla musal ñu ci loolu ñu ngi noonu Cheikh Ousmane
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون
ba barakallahu fikum suñu borom jalla waala mu ni wa in yukazibuuk su dee nag dañoo ñëw weddi la faqad kuzibat rusulu min qablik weddi woon nañ yonent yi la jiitu wa ila allahi turja'u al umur waaye ca yàlla rek lay dellu mbir yépp yaa ayuha nnaas ey yéen nit ñi inna wacda allahi xaq digg bu yàlla bi dëgg la fala taxurannakum alxayaatu dunya bum leen wor mukk lii di dundub àdduna gi wala yaxurannakum billahi alxaruur bum leen wor mukk ci yàlla workat ba inna sheytaana lakum adu sheytaane nekk na ñel leen doon seenum noon fattaxiduhu aduwa yéen it jàpp leen ko def ko noon innama yad'u xisbahu moom day ma ngay woo lii di partem ba li yakunu min ashaabi sair ngiree ñoom ñépp ñu bokk nekk ca ñoñi safara sair allazina kafaru lahum azabun shadid ñi nga xam ne dañooy weddi day dana leen ñeen mbugal mu tar wallazina amanu wa amilu salihat waaye ñi nga xam ne dañoo gëm cay jëf-jëf yu yiw ya lahum magfiratun wa ajrun kabir dana leen ñel njéggal ak fay boo xam ne fay bu màgg la afaman zuyina lahu suu amalihi fa ra'aahu xasana ama ndax ki nga xam ne dañoo taaral ñeel ko ñaawaayu jëfam doonte ne moom gis na ko ne lu rafet lay jëf lu baax fa inna allaha yudillu man yasha sa borom yàlla mooy sànk ku mu neex wa yahdi man yasha moom muy jubal ku mu neex mi ngi noonu ku ko neex fala tazhab nafsuka alayhim xasaraat bul yóbbu sa bakkan bi mukk ci ñoom nga doon koo xam ne nii dangay wone ak pertaange ci tiis ba nga xam ne tiis bu tar ba lay dal inna allaha alimun bima yasnaun ndax sa borom yàlla day moom mooy aji xam ca la nga xam ni yéeféer yaa ngi koy jëf mi ngi noonu mbokk gis nañu gannaaw ba suñu borom yàlla feeñalee ne kenn yeyewul ñu koy jaamu woo niñ ci seen xel mi ngi ñëw nag ci ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam mbokk yonent bi woote na li ëpp ci ay xeetam weddi ko suñu borom yàlla nag ne ko suñu lay weddee du yow lañ njëkk a weddi mboolem yonent yi jiitu woon dañ leen a weddi waaye xamal ni ci yàlla la mbir yépp di dellu nga jëkk caa dégg ni yow miy wax dëgg gannaaw yonent bi yépp suñ la weddee yonent yàlla yi weddi woon nañ leen te yow doob yonent kon bul bañ ko la weddi waaye yépp suñu warum yàlla subhanahu wa taala mu ne mbir yi ci moom lay dellu looloo tax ba xeetu yonent bi day weddi nañ yonent yàlla ba waaye téewul suñu borom yàlla yëkkati ne diineem ji ba tasaare ko ci àdduna mboole seen loole itamit avant mu fi jóge sallallahu alayhi wa sallam daane ko ñooñu ko weddi woon mboolem seeni doom ak seen sët yépp wëlbati ko nan dugg ci diine yàlla ci loolee kon ci yàlla la mbir yépp di dellu mooy dogal lu ko neex borom bi woote waat encore beneen woote bu ñu woo muy suñu ñaareelu woo ay yéen nit ñi fexe leen ba xam ni yàlla lim digge dëgg la mbokk yàlla lum dige dëgg la la gën a màgg lam digganteeg ay jaamam mooy yéen ñépp bis naa leen mas a dekkal ñi jaaroon ci samay ndigal ma wàcce leen aljanna ñi bàyyi woon samay ndigal ma wàcce leen sawara loolee dëgg la de doonte ne ne xam leen ni àdduna bii ma leen indi bum leen nax ba tax ngeen fàtte waajal dig boobee ma leen dig ca mbokk àdduna ngi noonu suñ borom moo ko bind moo ko xam nee na mata un xuruur la day waraate ay yow doomu aadama xamal ni lu la yéem ci àdduna rek na doon woto yu rafet yi compte bancaire yi immeuble yi tool yi ak jardin yi jigéen ñu taaroog lu mu mën a doon suñ borom nee na ka masali xaysin أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ñu mel ni rek taw bi mu wàccee àll bi naat bu yàggee mu lax bu yàggee mu nekk mboob ngelaw ñëw sànni ko mboolem li nekk ci kaw suuf xatta montagne yi borom bi poussière la koy def kon nga la waa yow doomu aadama bàyyil xel adduna bi bu mu la nax bi ngi fi ñëw indi woo dara boo koy won gannaaw doo yóbbu dara borom bi it mu ne fexe leen ba bu mu leen nax warkat bi te mooy cheytaan ba ko cheytaan mooy warkat bu mag bi moo waroon suñu bay aadama ne ko aadama kaay ma wax la gis nga garab gi bu ngeen ko laalee bu ngeen ko lekkee da ngeen doon ay malaaka du ngeen dee ba faw ca nguur la gu dul jeex borom bi mu ne fa dallahuma bi fa dallahuma bi xurur noonu la leen a tarxisloo wàcc leen ci wor gam leen wor waatal leen ci yàlla mbokk seytaane boobu it noonu lay def ak doomu aadama yi ca mooy imaamu feeñu la ci sa moroomu nit fàtte loolu diini dalal sa xel ci àllaaxira ah adduna yépp mu taaral ko ci yow wala boog mu daal di doon lu muy sànni sa xol ah yàlla baax na waay yàlla soxorul waay waa ji riba bi kenn mënu cee mucc waa ji nangam nangam mbokkul ñaari mbir yooyu lañu suñu boroom yàlla moytuloo adduna ngi nii ngalawaay yow jullit def ko moyen te bañ koo def jubluwaay adduna fexeel mu doon lu lay jàppale ci jaamu yàlla amma bépp taar bu lay soril yàlla ngalawaay moytu ko suñu borom yàlla nee na su ma bañul woon doomu aadama yépp nekk yéeféer képp ko weddi dinaa ko xëpp alal ba mu mën a tabax kër goo xam ne toiture bi yépp xaalis pur lay doon escalier yi na ko noonu plus zuxrufa lu nekk ci or mu soxla ko waaye borom bi nee na gis nga li léppit bu ko amee mata un xayaatu dunia lu néew la gannaaw ba nga dellu ci sa borom borom boobu subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne itamit seytaane seen noonu la looloo tax ba léegi avant ñuy jàng téere bu yàlla bi lañ jëkk a wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ndax seytaane ñaar mi ngi ci taxaw benn bu jëkk bi la aqudanna lahum sirataka almustaqim mboolem jaami yàlla yi la yàlla sant seytaane dana taxaw takku ba dëgër nga dégg bañ ko def soo demee ba tëkko dana fexe ba yàqal la ko soo demee ba tëkko dana fexe ba nga yëg ci sa bopp wala nga ngis talu ko amma yeneen yi muy bakkaar yi mooy yi seytaane nee na la uzayyinanna lahum danaa leen ko taaralal yombalal la taaralal la loolu nag yow julit ngiree nga nga def ko noonu la la cay dimbali mooy jàngal ba xam la yàlla bëgg ci yow gannaaw ba nga góorgóorlu ca làqu ci sa boroom amul kenn ku mën a mucc lu dul koo xam ne daa dellu ci yàlla nee woon na yàlla la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aksarahum shakirin danaa leen jóge kanam gannaaw ndeyjoor càmmoñ fenn rek la ya- la seytaane waxul ci kaw ak ci suuf ci kaw mooy nga laqu ci yàlla ci suuf mooy nga dee waaye tànk deewoo laquwoo ci yàlla xamal ne yaa ngi ci fiirug seytaan kon borom bi nee na jàppaleel ko muy seen noonu mi ngi woote guddeeg bëccëg ngiree am équipe wala parti boo xam ne day ànd ak ñoom sawara borom bi mu ne moytu leen sawara sawara mbugal boo tar moo fa nekk waaye ñi nga xam ne nag ñoom gëm nañ ci jëf lu baax suñu borom yàlla nee na mi ngi leen di waajal njéggal ndax na am mbokk julit léegi lañ nga dégg suñu borom ne ku lekk riba daf day dem sawara ku njaaloo day dem sawara ku sàcc day dem sawara mbokk loolu ay sabab la waaye nag sa borom it mooy borom njéggal looloo tax doomu aadama bi mën na dee fekki doon na njaaloo doon na naan sangara doon na lekk riba waaye suñu borom yàlla ci mbaaxam ak njéggalam yàlla jéggal ko loolu moom suñu borom mooy alxafaar mooy jéggalaat looloo tax ba loolu téewulaa dem aljana xamal na lenn dong ngay teree dem aljanna mooy dee fekk yaa ngi bokkaale sa boroom yal na yàlla musal ñu ci yow it bulu bi may dégg it bu ci profité nga ne ah kon imam noonu la demee njaaloog sàcc yëpp du tee ba dem aljana mbokk déedéet suñu diggante ak aljana ay étape dafay nekk de am na ñoo xam ne nii yàlla dana leen a mbugal ci kaw suuf ngir bakkaar yi ñu doon def mbugal yu tar am na ñoo xam ne seen biir bàmmeel dañ leen fa mbugal mbugal yu tar ngir bakkaar yi ñu doon def am na ñoo xam ne nii place bi si penc cinquante millions yàlla dana leen fa mbugal mbugal yu tar ngir bakkaar yi ñu doon def loolee kon ngallawaay gëmal ne yàlla muy alxafaar heure bu la yàlla nattoo nga def bakkaar gëmal alxafaar tuub dellu ci yàlla waaye nag moytul bakkaar sa kémtalal kattan ndax xamoo nooy teqalikoo ak moom yàlla dana leen jéggal te dana leen may pay yoo xam ne pay yoo màgg la ay yow doomu aadama soo gisee benn waay ñu koy yëg gis nga gis kii moom moom immeuble tel immeuble tel immeuble tel d'accord waaye ndax moom moom ndakaaru déedéet amma suñu borom yàlla subhanahu wa taala yonent bi alayhi salaam nee na ki gën a tuuti le nguur ci waa ajjana mooy ñi kay mujj dugg aljanna gën a tuuti le nguur yàlla dana ko may nguur goo xam ne muy gën a yaatu nguurug adduna gi ñu nekk dix fois mi nga noonu gannaaw ba nag mu am deuxième troisième quatrième ba la nga xam ne mooy téeméeri daraja mooy firdawsil aala yàlla na yàlla def ko suñu wàccuwaay kon mbokk mi ngi noonu mooy nguur gu mag yonent bi alayhi salaam nee na ya benn waay dana jaaxaan ci photo yu ajjanaam di xool mille ans ci nguuram doxu mille ans ci nguuram mu koy xool mi nga noonu kon loolu muy ajrun kabir boo xam ne nga la waay lenn ci àdduna ba mu la ko yàqal suñu borom yàlla nag wëlbatiku ci ñi nga xam ne ñoom day jàdd nañ yoonu yàlla seytaane tëralal leen aw yoon yoon woowee ñu jàpp ko ne nag lii mooy yoonu njëpp suñu borom mu ne xoolal ki yàlla taaralal aw yoonam mu jàpp ne lii yiw la suñu borom yàlla ne mooy sànq ku ko neex mooy jubal ku ko neex te mboo ko xam leen ni li gën a bon ci doomu aadama mooy nekk ci shirk te xamoo ne da ngay shirk nekk ci bidaa te xamoo ne da ngay bidaa loolu day tax nga sax ci loo xam ne nii yow jàpp nga ne lii lu baax la fekk ni musiba kese la da ngay gis nit ku sax ci ay bidaam di ñaan yàlla yal na yàlla faat ñu ci loola tax borom xam-xam yi dañ naan bidaa day moo gënal iblis bakkaar waaje di agressé di naan sàngara di njaaloo kee nekk ca biddaa iblis ca kooku la gën a kontaan ndax kii def bakkaar moom xam ne ni mi ngi bakkaar mi ngi fas ci xolam lii de yàlla naa ci génn lii de yàlla na ma ko yàlla baal am naa ki nekk ci bidaa nag danaan yàlla nañu yàlla rey ci lii ra'aahu xasana borom bi nag ne mooy jëbal ku ko neex di réeral ku ko neex loolu it mbokk mu lay jàngal ni foo tollu del ñaan yàlla njub waaye nag bokk na ci ñaan yàlla sabab lu yoonu njub amma di ñaan yàlla sa làmmiñ ba pare nag jàdd yow ak yoon loolee xamoo ku yàlla del ñaan yàlla te xam ne du say effort moo lay jubal yàlla mooy jëbal ku ko neex mooy réeral ku ko neex kon nag yow yeneen ci yàlla bi su yàlla dogalee bi nga woote sa xeet bi gëmuñu la ngalawaay bul alak sa bopp fala tazhab nafsuka alayhim hasaraat te loolu it mbokk suñu yonente alayhi salaam ci yërmandeem mbokkam yi mu doon woo mu xam ne ku dee rek sawara nga jëm ku dee rek sawara nga jëm ci ñu ko weddiwul borom bi mu ne laallaka baaxiun nafsaka ala asaarihim xaw ngaa rey sa bakkan mu ne ko nag sant ma la loolu samay jaam lañu maa leen bind maa leen moom li ma la sant wooteel koo xam ne nii jub na fa lillahi alhamdu ku jubul sa yónniwu ci fala tazam nafsuka alayhim xasaraat sunu borom yàlla mu ne maa gën a xam la ñuy jëf yàlla na yàlla jëbal ñu jëbal suñu njaboot mi ngi noonu si Ousmane.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسير
barakallahu fikum suñu boroom jalla wa ala mu ni wallahu lazi arsala riyah sa boroom yàlla mooy ki yónni ngelaw ya fa tusiiru saxaaba mu daal di yëkkati yóbbu la nga xam ne muy ay niir fa suqnaahu ila baladin mayit ñu daal di koy jeñ ba ci dëkk bu bu bu bu dee ay bu woo koŋ suuf su dee fa axyayna bihi al arda bada mawtiha ñu dekkal ca suuf gannaaw ba suuf sa deeyee kazalika nushur naka noonu it ngeen di génne ci seen bàmmeel ya taxaw ci kanamu yàlla man kaana yuridu al izza koo xam ne daa bëgg ak teddaange fa lillahi al izzatu jamia xam leen ne teddaange mboola seen ñel na yàlla ilayhi yas'adu al kalimu tayyib ci yàlla day lay yéeg jëm kàddu gu teey wala amalu saalihu yarfa'u jëf ju baax nag moo koy yëkkati walazina yamkuruuna sayi'aat ña nga xam ne nag ñooy fexe ay ñawteef lahum azabun shadid dana leen ñeel mbugal mu tar wa makru ulaika huwa yabuur pexey ñooñu day mooy pexey ña nga xam ni day sanku boo dee laajoon ñoom suñ jaay ñi nekk ci àll ba buñ demee ba ne jiwu buur na mooy jeex na ay mooy amatul leneen lu nekk seen gannaaw mooy képp kuy fexe ci fexe lu bon amul lenn njariñ looy jël ca gannaaw loolee wallahu xalaqakum min turab sa borom yàlla moo leen bind jële ci suuf summa min nutfa gannaaw bu mu bind leen ci toq maniyu summa jaalakum azwaja gannaaw bu mu def leen ngeen nekk ay peer wa ma taxmilu min unsa du nekk nag di ëmb benn jigéen la doon nit la ak bàyyi ma wala tad'u wala muy wasil illa bi ilmi xanaa lu dul ci xam-xamu borom ba wa ma yu ammaru min mu ammar du dund mukk aji ku ñuy dundal wala yunqasu min umuri wala ñuy wàññi ca dundam ga illa fi kitaab lu dul lépp nekk na ci ab téere inna zalika ala allah yasir loolu day nekk na ci yàlla loo xam ne nii lu yomb la mi ngi noonu mbokk suñu boroom wax nañu ne mooy aji bind ji moo bind malaaka yi mooy wërsëgal loolee it mu continue ca ba léegi ca mooy xam leen ne yàlla mooy yónni ngelaw yi mbokk ngelaw soo laajoon ñoom inspecteur Samb ñi jàng lenn ci ay géographie da ngay gis façon ngelaw yi kenn xamul ni mu bëri fa ñuy jóge so safaanoona seen puissance safaanoona seen tàngaay seen lépp safaanoona xam leen nag lu ëpp luy xew ci jaww ji yàlla nga ko jaarale ci ngelaw yooyee na doon la nga xamee ni nii mooy ngelaw yu tàng yi ngelaw yu sedd yi suñu borom moom lay dajale ngir taw di am évaporation yi la nga xamee ni ni mooy tasaare fleurs yi loolu tax boo demee ci alquran yaa ngi fekk suñu borom di wax riixul qaasif di wax ansif di wax sarsara di wax aqim di wax mubashirat zariyat mursalat façon ngelaw yu ne yàlla wax na ko ci téeréem bi ñoo ñépp nag nee na moo leen yónni gaa yi tey jii ñu ne tekk ana xiinu ngelaw ngelaw yàlla ko yónni da ngay toog bu mu jë nga dégg États-Unis ñu naa fagaru leen dëkk sàngam lañ ko toxal am na ngelaw buy ñëw war naa yegg si fii ak trois jours grande puissance première puissance mondiale luñ ci mën dara daw leen tëju leen làqu leen ngelaw bi ñëw rey lu mat cent deux cent yàq milliards dem fu mu jóge fu mu jëm yàlla moo ko yónni jàll waala mooy yónni riyaax ya donte na riyaax suñu borom bu ko waxee lu ci bëri mi ngi indi yiwu loolu it moo tax suñu yenente ba sallallahu alayhi wa sallam heure ba ngelaw ma sànni riddi day wax yàlla maa ngi leen ñaan yiwam ak yiw wiñ ko yónnee ak yiw wi mu àndal di la ñaan nga musal ma ci ayam ak ay biñ ko yónnee ak ay bi mu àndal loolee moo tax ba julit bul rëbb lenn ci temps hoo mer de sedd bi hoo tàngaay bi hoo ngelaw li hoo lay bi déedéet mbokk julit suñu borom mu ne doomu aadama mi ngi may lor ndax mi ngi rëbb temps bi ca man may temps gaa yi kuy indi ngelaw yàlla kuy indi tàngaay neige lay lu mu mën a doon kan moo koy indi du yàlla looloo tax ba nga lawa yow julit yaa nga ca biir glace ga yaa nga ca cinquante degré ca afghanistan yaa nga ca ngelaw la yaa nga ca géej yaa nga ca lu mën a doon ngalla waay élément nature boo dajeel neel yàlla lii de maa ngi lay ñaan yiwam di la ñaan nga musal ma ci ayam amul lu yàlla di yónni lu dul bu ko neexee def ko yiw te ña ko soob ci ay jaamam am na doon loolee ayu lu mu nekk nekk ay amul benn xéewal bu yàlla di yónni lu dul bu ko neexee def ko ay ca ña ko soob ci ay jaamam xam leen ne du ay mooy lor wala du yiw mooy jëriñ yiw ak lor lor ak njëriñ ci loxo yàlla jalla wa ala la nekk kon yursilu riyaax mooy yónni ngelaw yi jalla wa ala ngelaw yooyu yëkkati niir yi suñu borom yónni ko ba ci dëkk ba ko neex mu sotti ko fa nga dégg météo di wax ne Dakar dana taw lu heure tel lu waral loolu ndax dañoo xam kumpa déedéet gis nañ ay nuages ñu nga jógee fële ci Mali di ñëw vitesse bi ñuy daw xam nañ ne buñ ñee place sangam am na vent yu ñu fay dajeel fokk précipitation taw dana am ñu ne kon taw dana am bi sangam loolee mbokk ci kattanu yàlla la jalla wa ala suuf saa ngi nii wow koŋ mi ngi noonu laajal sa mbokk yi nekk ci àll bi mois de mai dañuy dem ci àll bi ruut ko lokkot ko sëñ caam gën ak ndakaaru xamut loolu ruut ko lokkot ko taal ay sibb tool bi wow koŋ talli suñu borom yàlla indi aw tabu taw ceeboom mu daal di sotti boo fa jaaratee quinze jours fekk suuf bi yépp di nëf nëfi ak gartaayam borom bi nag nee na naka noonu it bis bu ma soobee yéen doomu aadama yi na doon cent milliards ma sa ñëw ci kaw suuf deux cent milliards dana am benn bis ma génn leen yéen ñépp ngeen taxaw génn ci seen bàmmeel mel ne keroog bi ngeen di génn seen biiru yaay mi nga noonu daf yaramu neen borom bi nag ni képp koo xam ne daa bëgg teddaange xamal ne teddaange yàllaa ko yor mbokk teddaange moom mooy nga doon koo xamee ni nii yàlla dalay teral adduna teral alaxira moo gaa yi firaw na ndax yàlla ndax firaw na ku teddoon la déedéet mi ngi noonu firaw na déedéet ndax doomu aadama gannaaw firaw na am na kuñ koy méngaleel ci nguuru koo xam ne nii yaa nekkoon buur kenn contesté wu la ci àdduna nga am droit de vie et de mort ni ko tubaab di waxee ku la neex rey ci kenn du yëkkati baat yàlla may la kattan ndax loolu teddaange la déedéet teddaange mooy lu lay tabbal aljanna mooy suñu borom nag nee na ñi yor teddaange mooy fa lillahi al izza wa li rasulihi wa wa lil muminin kon soo bëggee teddaange bokkal minil muminin gëmal yàlla bu ko bokkaaleeg dara te boo la àdduna nax nga jàpp ne milliard bee ku tedd la mi ngi noonu laa xayra fii lazzatin min badiha naaru walla waykatu arab yi di wax mboole mi xéewalu àdduna soo ko dajale woon ca boo dee sa war a nga jëm ndax loolu teddaangale déedéet mbokk julit al izza lil muminin ñi gëm yàlla bokkaale wuñ ko dara ñii ñoo ñi tedd loolu it mbokk da ngay gis ne ku mel noonu kenn du ko jënd kenn du ko def loolu xaraam man nga koo def lu nekk tëj kaso rey ko waaye gorom diineem dara nga ci mënul looloo tax keroog ba bilal ñu futti ko di ko yóbbu ca naaj ba teg ci moom ay xeer waa Màkka tim ko di ko mbugal mu naan ahadun ahad ñu dem ba découragé na ko da ngaa xamul leneen loo wax mu ne ko damaa xamul lu leen gën a naqari na kon ma wax ko ne xam naa li gën a naqari mooy ahad mi nga noonu kon fa lillahi al izza wa li rasulihi wal muminin borom boobu nee na ko bëgg teddaanga sàkku ko ci moom yal na yàlla teral ñu àdduna ak alaxira teddaanga googu nag borom bi won won ñu yoon yoon ba mooy lan mu ne ilayhi yas'adul kalimu tayyib kàddu gu teey ci yàlla lay yéeg jëm gaa yi ban kàddu moo gën a teey ci kàddu yi mooy laa ilaha illa allah mooy kàddu gi gën a teey ci kàddu yi waaye suñu borom nee ne wal amalu saalihu yarfa'u kàddu googu di jëm ci yàlla jëf ju baax moo koy yëkkati te jii benn waay bu xëyoon fajar jot na mu toog ci fa mu toog laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ba baa jant biir sow jullulu fajar tisbaar takkusaan ba gaa yi laa ilaha illallah boobu dana ko jëriñ dara déedéet wala amulu saalih yarfa'u kàddu gu tey di zikrullah la koy yëkkati ci yàlla mooy nga boole ko jëf la yàlla jëful soo ko deful égal zéro bal kàddu yi yëpp mbugal lay mujj nekk seew ilayhi yasjudul kalimu tayyib wal amalu saalihu yarfa'u looloo tax julit day boole di wax lu baax waaye it boole di jëf lu baax borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni ñi nga xam ne dañuy fexe ay ñaawteef yamkuruna sayiat te ñi gën a bon fexe mooy ñuy fexe pour dina yàlla ji fay borom bi nee na mbugal mu tar dana leen ñeel te ñoom day seeni fexe ci naax saay rek la jëm looloo tax mbokk aaye bi mu wàcc yéefir yi façon pexe bu nekk defal nañ ko yonente yàlla bi is yamkuru bika allazina kafaru li yaqtuluuka aw yusbituuka aw yuxrijuuka fexe bu ne def nañ ko ngir arrêté dina yàlla ji borom bi mu ne seen pexe day naax saa yi looloo tax yàlla génn na ab yonentam dooleel ab yonentam ñoo mujj ibbi makka tasaare diini yàlla ji ba minute yi ñuy waxe yow islam mi ngi continuer muy benn diine boo xam ne muy continuer ci kaw suuf ba ila yawmi din wa makru ulaika huwa yabuur mboolem pexe yu yéeféer yi def ngir fay diine yàlla ji suñu borom nee na makru ulaika huwa yabuur seen pexe ci neen rek la jëm borom boobu di wax kàttanam ba tey mu ne xam leen ne yàlla moo leen bind yéen ñëpp bind leen ci suuf yàlla moo bind suñu bay aadama moo ko bind ci loxoom génne ko muy mbindaafon mu daal di koy def mu nekk jëmm mu jël ci moom ak faaram bind ca soxnaam boole leen génne ci ñoom njaboot goo xam ne ci toqamani yu lañ commencé di sosoo suñu borom nag commencé di bind góor ak jigéen borom bi ne xam leen ni amul benn jigéen boo xam ne dana ëmb lu dul ci kattanu yàlla te mbokk loolee maam yi gëmoon nañ ko amma ñun bi ñu demee ba tombeeg science suñu borom yàlla ubbil ñu lu bari ci kumpa lu nekkoon kumpa ci suñuy maam ñu xam ko léegi ñu xamal ne la doomu aadama mën na nekk ci benn sëy bu muy sëy génn ci lu jóge soixante millions de spermatozoïdes loo xamee ni nii il faut ñu multiplier ko lu jóge un million de fois nga mën koo gis ràññee ko suñu borom yàlla kàttanal leen ñoo am yoon bu muy jaar dem ci la nga xam ne mooy ovule bi génne ci soxna si borom bi subhanahu wa taala di def yu ñu ñëw di ko wër di ko wër di ko wër di ko wër ba benn muy dugg mu nekk benn doom ñaar ñaari doom ñett ñetti doom gis nañu doomu aadama dem nañ bi gis juróom ñetti doom koo xam ne nii wasin na ko kon kenn du ëmb lu dul ci kàttanu yàlla lu dul ci xam-xamu yàlla borom boobu it nee na amul kuy wasin mu mat sëkk lu dul ci kàttanu yàlla ñaka neex mu avorté leen fa mu ko neexee loolu it moo tax ba julit du ñaan njaboot ku dul yàlla jalla wa ala borom bu nee na amul kenn ku ñuy dundal amul kenn ku ñuy wàññi ci dundam lu dul ne xam na ko amul kenn ku ñuy dundal borom xam-xam yi ne mooy ñu yàlla di guddal seen fan ku ñuy wàññi dundam mooy ñu yàlla di gàttal seen fan te loolu it yàlla mooy def lu ko neex ñaari cheikh yi nii bokk judd benn biir kii yàlla dundal ko cent ans kii yàlla dundal ko dix ans mooy def lu ko neex am na it ñoo xam ne dañ koo fiire ci ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala dana gàttal dund doomu aadama ci bakkaar ak musiba yi muy def dana guddal dund doomu aadama ca sarax yi muy génne ak jëf ju baax da nga xam ne dana ko def loole ca téere ba muy joxe malaakaam donte ne moom dara ump ko loolu it muy tax ba ñuy ñaanalante yal na yàlla may la fan wu gudd ndax ñaan googu boo ko yàlla nangoo loole mën na tax fanam gudd tuyaaba ju baax ji nga def mën na tax fanam gudd allahuma am na yeneen it borom xam-xam it ñoo xam ne dañ ne temps fan yi du doon luy yokku waaye dund gi la yàlla di barkeel masalan da ngay gis benn waay boo xam ne nii dundul cinquante ans waaye def ci kaw suuf loo xam ne nit dund na cent vingt ans ci defu ko am déet loolee mi ngi noonu nga gis benn waay bu dund cent ans te dundam googu dafa mel ne ñetti fan ndax amuloon benn njëriñ kaw suuf loolee tamit am na ñu ko déggee noonu donte ne mbokk déggin yooyu yépp lu am la lu yàlla subhanahu wa taala di def la yàlla dana guddal fan dana gàttal fan yàlla dana barkeel ak dund mooy def lu ko neex ci ay jaamam borom boobu nag ne lii ma leen wax lépp doon na loo xam ne nii day nekk lu yomb ci yàlla subhanahu wa taala mbokk yàlla ngi nii dañuy wax boppam jullit war a xam boroomam wóolu boroomam doyloo boroomam képp koo xam ne xam nga sa boroom wóolu yàlla te doyloo yàllay kese fokk yàlla dana la teral adduna yàlla dana la teral alaxira yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yi muy teral adduna ak alaxira yàlla na ñu musal ñu bokk ci ña nga xam ne dañ koy bokkaaleel yàlla na yàlla barkeel suñu dund te boole ñu ci àjjana yu kawe ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ay laaj yoo xam ne da koo jëlee ci internet bi fii mu ne dafa am insuffisance rénale médecin na ko bul woor muy sikk sàkk naan ndax day woor ak du woor bokk julit dañu xam ne suñu borom moo séddale xam-xam yi am ñu mu may xam-xamu yaramu doomu aadama ci may médecin donc médecin bi bu dee ne ku xam médecine la même bu doon ab yéeféer la waaye xam ne médecine mu ne la yow kat feebar bi la dal mingoowul ci nga xëy suboo ngoon lekkoo loolee da nga war a bàyyi koor gi suñu borom yàlla mu ne ko ku feebar na jël bi yeneen bis mu woor ko su dee yàlla nag dafa def ñu condamné la ne la yow mënatoo woor di def sa dund su boobaa looy def mooy bis boo waroon a woor nga génne kilo ceeb sarxe ko mi ngi noonu wallahu aalam kii muy wax naan ndax sukkaru koor dafa nekk ay wareef déedéet mbokk julit sukkaru koor tuyaaba la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki woor ba ngoon nga may ko lum doge dañ lay bindal tuyaaba ju toll na kooram kon lu ci waay man génne ko joxe ko loolee fi lillahi alhamdu soo ko joxee say jege ñaa la it tuyaaba ji dafay gën a bëri comme la ko yonent bi alayhi salaam doon wax sarax ba jëm ci miskine sarax la bu jëmee ci jege ñaa la yi day nekk sarax ak jokk mbokk loolu mooy mi ngi noonu mu ne dafa am koo xam ne nii daf ko joxoon xaalisu nag bu mu jëndoon war koo fay benn waay léegi nag xaalis boobee mu ne yàgg na ndax léegi bu dee waa ji da koy fay xaalis ba la koy fay wala prix nag la koy fay mbokk doomu aadama yi lu ñu leblente loolu la ñuy fayante waa ji da nga koo lebal nag lu mu yàgg-yàgg nag rek la lay fay du la fay gileem waa ji nga lebal xaalis it wala mu lekk sa xaalis xaalis rek la lay fay ndax valeur ba yokk na ak yokkuwul déedéet xaalis nga ko joxoon xaalis la lay fay mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam su dee bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam naam ak yéen ak yéen ñun ñëpp incha allah naam barakallah fiik mu ne dafa naam waaw mu ne dafa julli bi mu demee bay taaye bay waaj a sëlmal fàttaliku ne deful ñaareelu sujjuut bi waaw ku mel noonu day indi ñaareelu sujjuut bi su ko indee ba pare dafay taayawaat su taayawaatee ba pare mu sëlmal su sëlmee sëlmalee doog a sujjuut baada salaam ngir taaya ba mu dugal ca ñaari sujjuut ya mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam la nga xamee ni nii mooy kii nga xam ne dafay woor ba digg bëccëg mu yëg ne man mii kat mënatuma wëy daa di dog kooram loolee du tee bis boobee da koy fay même bu doonte ne cinq minutes wala lum néew néew du tee da koy fay ngi mel ne soxna si wooroon ba ba dara desul lu dul cinq minutes jant bi soo mu gis baaxam génn na da koy fay tuyaaba jam woor nag loolu yàlla dana ko ko fay mooy tuyaaba jam woor ba coono boobu daf ko dana ko ko fay soxna si wooroon ñi bis boobu yàlla dana ko ko fay waaye nag bis bi moom du ko teggeeku fokk dafay fay la nga xamee ni nii moom mooy bis boobee lan la mujj wax mu ne ci ah malaaka ay ndax ndax malaaka yi indi woon la nga xamee ni nii moom mooy gaalu Muusaa ga loolee gisuñu malaaka ya gaal ga rek lañ gis mu daal di teer ci ñoom wax naa la ne ay malaaka la nga xamee ni nii moom lañuy dañuy ñëw di feeñu doomu aadama yi lu raar la waaye boo gisee histoire yi ñu nettali ca la nga xamee ni nii moom mooy Taaluuta ba ko buur ba waxee ne yàlla fal na ko buur ban Israël di ko contesté mu ne melokaana mooy seeni noon ba ñu leen dàqee jëloon nañ la nga xam ne mooy jeexatul Moussa ak Haroun da ngay gis malaaka yi indi ko ci Taaluut dañu tëgg mujj rek ñu gis gaal gi daal di teer si ci kanamu Taaluut comme Souleymane alayhi salaatu wassalaam keroog bi mu ne ka mooy indil tooguwaayu reddu saba benn jinne na bu xeet na ko man bala ngaa pare atti léegi ma indi ko waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala am kenn ku nekkoon Souleymane dafa ñaan rek malaaka yi jël nguur gi Souleymane avant muy xef xefi malaaka yi teg nañ ko ci kanamam waaye boobaa it dañuy gis ne mu ne fa lama raahu mustaqiran inda gisul malaaka ya waaye la ñuy def la gis wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam da nga yëkkati baat bi tuuti waaw ndax kuy koor mën na parfum ah kay kii koor terewuñ ko mu parfum terewuñ ko mu soccu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam wala kulli xaal dañoo war a laaye biir imam bu dee ne yéen kay nangu ngeen ne julleem dafa gaaw dañ ko war a laaye biir bu ko laaye biir gi it boo ko déggee mooy loo xam ne dana ko jëriñ parce que léeg-léeg yow ndaw wala yow gan man nga wax imam yëg boppam waaye boo jaaroon ca magi jàkka ja xëy na wax ak ñoom mën na am imam changé su dee imam nangu naa changé falilahi alhamdu loolu moo doon jubluwaay bi su dee ni imam nanguwul a changé ci nga gis beneen jàkka da ngay dem beneen jàkka su dee ni beneen jàkka amu fa nag nga julli ci gannaaw imam ci xam ne imam mooy responsable mi ngi noonu waaye daal loolu du tax nga bàyyi jàkka wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam dund bàmmeel xaybu la loolu mënaguñ koo xam xaybu la xam leen daal ñetti façon dundin am na mooy dund gi ñuy dund nii nga xam ne moom xam nañ ko yëg nañ ko am na dundin goo xam ne nii mooy dundug bàmmeel loolu dundug spécial la goo xam ne nii ki nekk ci xéewal mi ngi nekk ci rawdatun min riyaadil janna ci jardin yi àjjana suñu borom di ko fa dundal ak dund am na ci ay spécial shuhuda yi yàlla ngi leen di may ñuy naaw di dem ci wër arshak yu deme noonu loolu ay dund spécial la loolu nag bokkul ak dund gi ñuy dund ci biir aljanna yàlla na yàlla yóbbu ñu aljanna ndax xam ngeen ni doomu aadama xattaa ci kaw suuf gi rek am nga fi façon dund gi bokkul li ngay dund ci gént bokkul ak li ngay dund boo géntul doomu aadama day tëdd sangoo mbaaj jëm ci néeg bu lëndëm këriis ba pare di dund loo xamee ne ni imma bànneex la imam naqar la loolee nag da ngay gis ne dund bàmmeel it naka noonu xamel daal bàmmeel boo gis borom mi ngi ci xéewal wala borom mi ngi ci mbugal mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa kon mbokk mënees na doy loo loo doy loo loolu di ñaan suñu borom yàlla yal na yàlla barkeelal ñu détail bi yal nañu yàlla jéggal yàlla yërëm ñu ca dajalewaat ñu fi suba ci jàmm ci ngërëmam ak yërmandeem wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain